sëñ Mansour loo ci dolli rek ñu jàll. waaw bis bi moom day loo xam ni dafa dajale loolu bari. Mhm. bisu cant képp koo xam ni di nga mhm. li nga xam ne moom nga war a sartonteel day mel ne day dajeeloo ci la wàcc. nga dikk tam ci barab boo xam ni sëriñ bi jàngale xam ne euh, wormaal euh, barab bu suñu borom wormaal. Mhm. boo ko defee. lu tax barab ba gën a tëdd wala war ma ja gën a yokk wallaahi waaye boo ko defee nag boo ma ñu xaaj prometi lay kooku xëyrun lahu inda rabbi mm-hmm. Mm-hmm. kon dafa mel ni kon barab bi moom tedd nga ca ne yow muy góorgóorlu jox ko ko mm-hmm. loolu day mel day dellu si ci kon bis boo xam ne mës naa dégg euh, bàyyi mu gaay euh, yàlla suñu borom yokk leen te daw bibliothèque benn interview ko bibliothèque euh, waa RTS wax ju gàtt la ma dafa muñ ree daal ne xew-xew bi de li muy xum xum xum jaamu yàlla rek jaamu yàlla nag dafa am loo xam ne naka jekk daf cee bokk mm. am na loo xam ne si jekk dañ ko caa mm. loo xam ne naka jekk daf caa war a am am loo xam ne lu yàgg yàgg yàgg lu nit ñi riir riir wuti ko def ko ci lu mm. tax mukk mu soppi la nga xam ne mooy la te suñu borom digle kon bis la boo xam ne ni ñu diglee ne koor loo ci def lu baax day mel ni day gën a fulandi waaye tamit boo ca defee safaan day mel ni lañ la doon teg day gën a diis. dëgg la ndikki noonu dikk Touba dikk ci màggal bi def lu baax. buntu promotion bu suñu borom dafa julli ci tax seen néew doole ngir ñu yokk. Hmm. waaye nag ku fa def safaan na xam ne buñ doon teg benn dañu jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Moustapha Diop ñu ngi koy sant bu baax a baax jërëjëf it euh, Serigne Mansour Seck jërëjëf waa daayira euh, Ahlu Café gis ngeen li ñu wax ñu am solo la sant it soxna yi mbokk yi kon dañuy daal di rek dalal Serigne Abdoulaye Sagnane moom it mu ñëwal ñu ci actualité màggal laataa loolu nag numéro téléphone yi nga xam ne joxe naa ko sànq bi may bi may ñoo xam ne si jot nañu cee woote euh, ma fàttali numéro yi 77 967 93 93 xam naa beneen yoon sax incha allah ñu leen ko bindal ci seen écran beneen bi ci des di 76 668 84 30 ngeen mën cee woote rek euh, wax seen xalaat ci euh, émission bi kiñ ci njëkkee Serigne fàllu ñang moom mi ngi wootee Touba Xayra moom nee na mi ngi sant bu baax a baax tey rek di ñu ñaax euh, ci li nga xam ne si moom mooy liggéey bi euh, di euh, ñaaxit di encouragé ñëpp rek ci ñu gën a def fulla ci li nga xam ne si moom mooy màggal gi nee na bëgg na tamit nee na ñi nga xam ne si ñoom ñooy Baay Faal ñu gën leen a dugal bu baax a baax ci li nga xam ne si moom mooy gestion wu dëkk bi bu ne gestion wu dëkk bi nag li mu ci jublu mooy daf ci am loo xam ne si moom jàpp naa ne Baay Faal yi donc ko mën a dindi ndax ni ko si ni ko sëñ Fallou mi sëñ Fallou Ñang mi waxee noonu la amee ndax léeg da nga leen di gis euh, ñu taxaw nga bëgg a dugg si jumaa ñu taxaw ne doo fi dugg te muuru woo wala su mi leen dàll yi war maa leen dëkk bi yu mel noonu daf ci am yoo xam ne léeg-léeg euh, Baay Faal yi daanaka ñoo koy ñoo koy ñoo koy gën a man bu ko defee euh, te it nit ñu bari dañoo dañoo ragal Baay Faal nag rawatina mbokk soxna yi te ñaam tooxi doon yu bëri ñoo koy def dañoo ragal Baay Faal bu leen Baay Faal ne yor kuur gu rëy teg ko seen mbagg bu mu la wax da nga ko def keneen kii di Serigne Mohamed Dramé moom mi ngi wootee ci daayira ahlu fulk daayira ahlu fulku bi nekk ci grande mosquée bu Touba ci jumaa ju jumaa ju mag ji nee na moom it mi ngi ñuy euh, ñaax bu baax a baax di sa yëkkati ay kàddu yu sant euh, ak it euh, nee na li nga xam ne si moom mooy digle yi ñu digle ci dëkk bi te soxna Ndeye Mbaye doon ko fàttali léegi sëñ Moussa ñëwaat na ci nee na ak yi nga xam ne dañ ko tere ci dëkk bi nee na nañ ci jàpp waay ngal la waay warmaale ko dëkk bi bañ ko fee def lépp loo xam ne lu borom bëggoon la nañ ko fiy saxal bu ñu ñëwee waaye lépp lu fi borom bañoon nee na nañu ko nañu ko bàyyee keneen ki ñuy mujjee Euh, di euh, Serigne Modou Diop moom nee na euh, chauffeur la bu bokk ci xam naa regroupement chauffeur yi la li ñu bind laa mënta liir bu baax a baax xaw ma lekkatitude waaye daal mi ngi bokk nee na ci ñi nga xam ne si ñoom ñaari regroupement chauffeur yi nee na moom lim ciy bañ waaw nee na l'attitude des chauffeurs waaw kay kon chauffeur yi seenug ni ñu mel seenug doxalin waaw seenug doxalin ci màggal gi xam naa mooy li soxna si doon wax léegi rek di yokk paas yi nee na loolu Euh, yemul rek ci euh, benn région waaye nee na région yëpp la nee na région yëpp ñooy yokk foo dem boo demee Ziguinchor boo demee Ndar boo demee Kédougou Kaolack Fatick foo ci dem nee na boo nee Touba rek nee na tey nga dee prix bi ñu lay wax daal euh, doo ko mën a dégg ci say nopp nee na it mi ngi yónnee nag ay kàddu yu sant ak euh, ñaax ñu euh, ci liggéey bi nga xam ne si ñu ngi koy def ci Al Mouridiya nee na sant équipe bi yëpp rek nee na liggéey bi rafet na lool ñu ngi koy sant moom it moom Serigne Modou Niang di rafetlu kàddoom yooyu di sant sëñ Mouhamed Dramé ak it Serigne Fallou Niang am na ñeneen sax ñoo xam ne ñoom réagir nañ xam naa temps bi moo ñu xaw a xooj rek waaye buñ ci mën jukki daañ ci jukkiwaat incha allah kon mbokk yi ñu daal di ànd ak waa régie daal di ñëw nag ci Serigne Abdoulaye Sagnane ngir mu jukkil ñu euh, li nga xam ne moo fi jot ci ay xibaar te jëm ci màggal gi. ñu sant ñëpp rek euh, sëñ Modou ni nga ko waxee di sant say invité li nga xam ne nag moom la ñu indi tey ci euh, mu jëm ci actualité màggal. Mm. li ci dafa jëm ci caravane bi nga xam ne comité d'organisation bi mi ngi koy amal at mu nekk ñu koy amal ci waajtaayu màggal gi ci njiital Serigne Cheikh Bassirou Mbacké mi nga xam ne mooy président comité d'organisation bi caravane bi nag ren ji ñu ngi tàmbale seen liggéey talaat ji ñu génn euh, juróom-ñaari fan ci juróom-ñeenti fan ci weeru octobre ñu ngi ko tàmbalee kon ci jolof euh, fu mel ni siin jolof di dëkkub sëriñ euh, tafsir demb buuna di maam ci El Hadj si ba ñu fa jógee dem afe jolof ak tamit mujjee ko caamen jolof di dëkku maam Samba caam mi nga xam ne moo jàngal maam Maharam kon loolu moo doon étape bu njëkk bi ñaareelu étape bi nag ñu demoon Ndindi dëkkub Cheikh Mamadou Fadul Mbacke fekk fa sëriñ Abdou Fata ak euh, sëriñ Ahmadou Rafa mi nga xam ne ñoo dalaloon délégation bi Babacar Ndour moo ñu leen toppal kon caravane bi ñu ànd teewlu élément bi bi mu ci defal. ci yoon bi mu dëgmal alal bi fukki fan ci weeru octobre caravane bi egsi na fii ci Ndindi ndi Ndindi ñu gën ko xam ci dëkkub Serigne fàllu bi nga xam ne sanc na ko ginnaaw bu mu jotee ndigal ci way waajuram Xaadimu Rasuul ci atum 1915 bi ñu egsee Ndindi délégation bi sàkku na ay ñaan ci Serigne Abdoul Fattah mu ñaanal leen li jiit ñoo tàmbali liggéey bi fii ci jumaa ji ànd kook nga xam ne ñooy màggi dëkk fii nu toog tey sëñ Fallou sëñ ci ko 1913 mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëñ Fallou dikk sañ ci dëkk bii bi sëñ Fallou delsee 59 yeesal ci dëkk bi danoo yelwaan si reer dajaloo fi gigis gi buñ dajee nun ñëpp ànd ñu bi añee sëñ Fallou bëgg a ñëw fii bëgg fee yónni gisu ndaw sëñ bu sa génn yor ampul fi nit ci gigis gi fi mu toog nu ñu ne fii ñu ne ko nu na mu xam sama baat na ma kooku du góor a sëy ah, ma ne ma ñëw luy sëy maa ngi ko fekk di baraagu sëy Moustapha bi na moom mu ambul ma waaye ci ko mu ne ma ñeme nga fii ndindee ma ne ko waaw waaw foo ma yebal ñeme naa mu ne kaay ma nit mu daal di may ñaanal ma génn boo awee gaar bu ndaw aw bitigu Malick Ndoye mbedd moomu ngay jël menn la salaan la ba génn kër ñaan amul fu ñaaw fekk naa ñii julli gee ba toog ci bitig fii toog di waxtaan laa agsi nuyoo sama bàyyi na ma looy dox na nga mbaa jàmm na ma loo wax ma ne ko sëñ bi ma yónni mu ne ma sëñ ban ma ne ko sëñ ko mu ne lu wax ma ne ko nee na naa la wax ne yaag bàyyi ma du maani sëy bu subaa ci talaata gi dana fi ñëw seeti ci àll bi yeesalaat dëkk bi day ñibbi ci ngoon si sëriñ Afe jiite woon na fa waxtaan dikkaat ci li nga xam ne mooy dund ak jaar-jaari sëriñ Fallou rawatina liggéey bi nga xam ne def nañ ko ci yaatal màggalu Touba. képp ku di taalibe bu bisu fukki fan ci weeru safar ñëwatee ci at mu ne war ngaa topp ndigalul sëriñ Touba loolu yi bu bis bi ñëwatee war ngaa. jëfe ndigal li sëriñ bi santaane ci màggal bis bi ci xeeti berne te defe ko nam ko santaane mu ne kon sëriñ bee joxeel boppam ndigal ci màggal bis bi ndigal loo xam ne làkku ko léebu ko liyaaru ko da ko wax mu wér cëng kilifa yu bari teewoon na ndaje bi rawatina ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou yu Mbacké moom bi nga xam ne yëkkati ay kàddu cant ci turu njaboot gi jagleel ko délégation bi nga xam ne moo àndoon ak caravane bi. mi ngi noonu ginnaaw élément boobu kon dañuy dellu ci dëkk bu sell bi di Touba wax ci euh, fan bi njëkk ci weeru safar ni ñu ko daan amale nag jekk sëriñ bi joxe woon ndigal ñu jàng amal njàngum alquran ci suba gi ni ki démb ak tamit njàngum xasaayit ci guddi gi noonu la ñu ko dundalee ci tax taxawaayu sëriñ Amsatu Mbàkke ni ko sëriñ bi joxe woon ndigal euh, muy kuréelu xasaayit yi ñi nga xam ne dañuy jàng njàngum benn benn ñoom ñëpp euh, ña nga fa woon ci teewaayu nag xalif général des mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke mu ñëw ngir jëmmal jataay bi soññ taalibe yi xam ne nii rek la euh, màggal gi nii la ko borom bëggee loolu kon démb ci guddi gi ci la ci taalibe yëpp ña nga woon ci jumaa ji Euh, ci suba gi it ni ma ko diglee woon mooy njàngu alquran la ñu amal ci euh, euh, taxawaayu rabita bi muy sëri ñoom sëriñ xaal jaxate ñi nga xam ne ñooy taxaw njàngu alquran daaray alquran yi ci kilifteefuk sëñ Mamour Mbacke ibnu Cheikh Mamadou Fadel noonu kon lañu ko dundale at mu jot ni ñu ko daan defee muy benn fan bi njëkk ci weeru safar loolu tamit ñu ci fàttaliwaale ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko muy ñetti kaamil yoo xam ne kenn ku ci nekk soo ko mënee nga defal ko sa bopp soo ko mënul nga seet ñu loo ko defal ñoo xam ne danga leen di euh, te teral neexal leen te loolu lépp di dellusiwaat muy ndigal loo xam ne ku fàttaliku ku ne xam ne ca tàmbale ca Cheikh eh, Abdoul Ahad mm, ba léegi xalifa Serigne Touba ku fi toog di ko fàttali lépp rek jëm ci bis bi xam ne bisub jaamu yàlla la eh, dañuy mujjee muy élément suñu élément buñ mujj dafay jëm ci Euh, euh, euh, tànki nemiku yi nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké ni mu koy defee benn fan bu nekk ci weeru safar di ñëw fii ci daara Hizbut Tarqiyyah kon noonu la ko amalee démb ñëw fii muy ngan goo xam ne bi taalibe yi bég nañ ci lool ñu teew li ci kon élément bi nga xam ne defal defal nañ leen ko ci ni mu baaxoo at mu jot di ko def Serigne Mountakha Bassirou Mbacké daal di feddale kóllëreem ci bés bi nga xam ne mooy bés bi njëkk ci weeru safar digganteem ak Hizbut Tarqiyyah lii nag duñu ne guléet ngir at mu jot Serigne bi daan na baaxoo di ko def bi ñu yàggee ci 11h ci la Serigne bi daal di yegg si fii ci daara Hizbut Tarqiyyah ci yoon wi nag ci la ko ak convoi daal di gàttandu muy ay woto daal di koy dar gunge ko ba ni mu yeggsee ñu daal di koy dugal ci biir dalal jëwriñ daara ji nag di Serigne Atou Diagne moom moo ko tatagal dalal ko daal di ànd ak moom moom ci bërëb bu njëkk bi nga xam ne ci la dal muy saal bu mag bi nga xam ne ñu ngi ko duppee Touba Aliya bi sëriñ bi yegsee daal dinay toog mbooloo mi di jóge fu nekk ñëw di ko nuyu waa quartier bi ñëpp fàq ñoom it ñëw ngir teewe si bés kuréel 1 bu isbu taraxiya moom it daal di yëkkati ay xasida ngir rek tatagale ko sëriñ bi mu daal di toog tàmbalee déglu njàngum xasida mi ginnaaw bi mu nuyontee ak taalibe yi ba noppi daal nay jóg ànd ak mbooloo mi ñu gunge ko nag ci jur gi nga xam ne si moom la ñu jot dajale te lépp rek ñu fas ko yéenee bernde la gan ñi nga xam ne ñoo nar a ñëw ci màggaluk sëriñ bi nga xam ne ren jii ñi ngi ko jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar muy yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre jur gi nag ay nag a ngi ci ay xar a ngi ci waaye it ay gëléem a ngi ci lépp rek ñu nar ko bégale gan ñi nga xam ne ñoo ñëw ci bés bi sëriñ bi jógee foofu nag daal dinay yegg ci kër jëwriñ jii di sëriñ Aatu Jaañ ngir rek ñu daal di fay amal abernde lii yépp nag bu nu ko booleek li nu gis rek day wane ne direction générale bu Hizbut Tarqiyyah tey jii daal bàyyiwul lenn loo xam ne si mën na koo def rek ngir wane mbégteem ci ñëw gi nga xam ne moo fi xalifa général kullu ñëw Serigne Mountakha Bassirou Mbacké une heure jotee ci la xalifa bi daal di jóg nag daal di fas yéene tàggoo ñaanal mbooloo mi ñëpp daal di kontaan ñaanal it ñi nga xam ne si ñoom ñoo doon jàng xaside yi ngir sëriñ bi ay xaside da ko yitteel lool xar kanam yépp nag daal di belli ubbeeku ànd ak mbégte moo xam ne kenn mënu koo natt ngir dëkkandoo yi ak ñi nga xam ne ñoo ne ci quartier bi ñoom ñëpp ñëwoon nañu ngir wane rek seen kontante ak seen mbégte mi nga xam ne ñu ngi koy séddoo ak Hizbut Tarqiyyah mu nga kon mooy suñu élément bu mujj muy euh, mbégte doonoon mbégte ci ñëpp ndax sëriñ bi naka jekk lu mu daan def la waaye taxawaayam bii tey la mu ñu wax la mu waxoon isbu tarxee mooy nii sama taxawaay bii du soppi dara ci la ma daan def loolu nag moo firndeel euh, ñëwam bi firndeel na ko muy ak cant goo xam ne taalibe yi yëpp bég nañ ci ci turu jëruñ daara ji moom itam xëy na ay kàddoom jotuñu ko indi sax waaye noonu la euh, santé xam ne Euh, ci turu mbooloo mi sant na sëriñ bi xam ne lii rey na ci euh, euh, taalibe yi rey na ci waa isbu tarxiya muy loo xam ne tey ñëw ngir dolliwaat seen pas-pas xam ne ku ñuy soññ rek la ne la yaa ngi ci yoon wi góorgóorlu kon sëñ Modou Kébé loolu lañu leen indiloon tey ci seen bunt bi nga xam ne moo jëm ci actualité màggal ñu jaajëfal ko bu baax a baax Serigne Abdoulaye Sagnane ak actualité màggal bi nga xam ne si moom lañu ñu indil euh, ñoo ko gisandoo euh, fi ñu tolloon nag ci waxtaan wi tamit di doonoon bunt boo xam ne si bunt bu am solo la xam naa damay euh, dellusiwaat rek ci Serigne Moustapha su ko defee ñu am benn wala ñaari question yoo xam ne daañu ci duggaat laataa ñuy ñëw ci suñu rubrique fàttaliku fàttaliku tamit danañu fàttaliku. Euh, soññ yi nga xam ne Serigne Abdoulaye Mbacké soññe woon na ko ci 1979 euh, ci mu jëm rek ba tey ci wàllug euh, wàllug màggal gi suñu dañoo nekkoon ci bunt boo xam ne bu am solo la muy buntub nattu nattu di loo xam ne sëriñ bi jànkonte na ceeg lu dul jeex ma bëggoon rek nga jukkil ñu tuuti rek ci nattu yi nga xam ne sëriñ bi jot na ko jànkonteel ci tukkeem bi sëriñ bi dafa mel ne <clears throat> ba nga ba mu jubóog boroomam. teg moom. ci toggoo lépp lu mu ko teg booba lay fi tàmbali. daggatul sax ba ci mujjug dundam. ndax ku nekk xam ne période bi nga xam mooy 1912 ba ci 27 1927 dëkkul Touba gi mu gën a bëgg. xanaa mi ngi dëkk Njaareem rek. nekk ci résidence surveillée. boo xam ne génnagul ci loxol noonu. kon natt la boo xam ne dafa matale dundam gépp waaye <coughs> bokk na ci ba nga xamee ne <coughs> ma nga ndar mm-hmm. te waa ndar ak waa réew mi bëgg koo gis mm-hmm. ndax ñen ñi dégg ko ñen ñi ëmbir mën ci moom ñen ñi bëgg koo masaw te nga xam ne tubaab bi ci boppam dafa dox diggante mm-hmm. sëriñ bi ak ñooñu bi maanaa ba ci ay bokki jullitam bi ay bokk réew moom nanguwuñ moos mu jokkook moom ba sax Eh, sëriñ bi nekkoon na ci barab ñen ña ci kaw ñen ña ci suuf ñu bëggoon sëriñ bi ci boppam di wàcc ndax ànd jullit ñi ñu mën a ànd ak moom julli te moom julli mbooloo la xam waaye dañ ko koy aye mm-hmm. sëriñ bi bi nga xamee ne ñu ngi koy attee li ñu koy attee te dara du ci dëgg te mu xam ko te ñëpp xam ko te suñ borom forte ne fokkul na am mm-hmm. ci ñetti mbir li rasul li li suñu borom waxal rasul la li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka benn rek ci ñett yooyu verdict bi mënut a génn ñett yooyu benn mooy nañ ko tëj fi benn barab donte fu jege la kenn dootu àgg ci moom dootu àgg ci kenn wala boog nañ ko faagaagal bakkanam rot wala boog nañ ko génn muy dem te du si mu ñetti yoo xam ne benn bu ci nekk diis na mhm. te sëriñ bi ci boppam xam na ne fi ñu ko dara du ci dëgg te suñu borom imposé na fokk day am. sëriñ bi ci boppam atte nañ ko ba muy dem ba génne ko réew mi xamut fuñ ko jëmee wax nañ ne ci Guinée Conakry la doog a dégg kuy wax ne kii kët biñ ko àttee Gabon la jëm foofee la sëriñ bi jëkk dégg jëkk jëkk sëriñ bi ci ndakaaru ñu mu nekk ci waxtu koor di waxtu tàng di ak gan gu wàcc dëkku taax defe ne fu lañ koy dalal ñu wàcce ko ci néeg boo xam ne tàng ga ak xat ga ak yu rab ya nga xam ne ma nga fa nekk nga xam dafa yegg suuf lépp dem ci kawam lépp ay nattu la te yooyu yëpp ay nattu yu zahir la ndax it nattu dafa am ñaari façon nattu nattu yi nga xam ne mooy nattu yooyu nga na ko waaye nag nangu nattu gi nga xam ne moom la jàppaat nag fas yéene tëj boppam ci muñ gi tëj boppam ci ndigalal suñu borom lépp lu suñu borom digle dina ko def ba man sëkk du ci bay dara ci diggante farataak naafilaak man duubak mu baax ak lépp dina ko fi ci bàyyi dara mhm. ak natt bi ci des mooy lépp lu suñu borom aaye ko ko dina ko fas yéene bàyyi du ci laal dara uxuma laal waaye xalaat sax du ko def boole kooku lépp lu ko suñu borom teg ci ay nattu it du ko jàmbat du wonk du def dara loolu yëpp ba tey ci nattu yi la kon nattu yi moom niñ koy limee di wax lii wub suuratul baqara la mhm. ah kay buñ ko buñ ko buñ ko faram-fàccee mën naa dem ba ba lim boobu mat waaye lépp di ay nattu te nee naa depuis mille huit cent quatre-vingt-quinze la tàmbali ba mille neuf cent vingt-sept mu génn mu mu mu bàyyi na fi wuj yàlla mhm. daanaka mënit la wax benn jamono boo xam sëriñ bi génn ci ay nattu mhm. waaye suñ borom loolu la namoon ndax gannaaw da koo namoon a def imaam inni jaa'iluka linnaasi imaaman tey ma samp la ngay koo xam ne ki de yilimaan ngay doon juy takk di làmpub diine te dootoo fay kooku nag kon la ko njëkk la euh, fay la goo xam la ko jiitu la ma Ibrahim rek wa iz ibtala Ibrahima rabbi kalimatin fa atammahun qaala inni jaa'iluka linnaasi imaaman kon nattu la waay alhamdulilahi e, indi na sauvé na diine sauvé na jikko yu rafet yi ndax damay wax ne ni ko sauvé bokk na ci tëj yi bu fekkoon ne yàlla suñu borom génnewul ku mën a Sëriñ Tuubaa koo xam ne ki day wax déedéet ba ci pas-pas yi di wax déedéet ci jaamu gi di wax déedéet jikko yu rafet yi kon su boobaa amaana bu ëllëgee duutu jaral kenn dara ndax nit ki ñaar lu mu amul exemple du ko man a roy waaye ndokk bi xam sëriñ bi joxe na ci exemple nga xam ne kenn ku nekk xam ne a ah, kay nekk kon diine jar na lii ndee kon jaamu yalla jar na lii kon makarim axlaaq jar na lii loolu ci boppam su boobaa alhamdulilah kon mu desaat fi di yees ba nga xam ne du raaf kon foofu sa bi dekkal na fi diine samp na fi diine siggil na fi diine lépp nag am ndoddam muy namma dalub lislaam waaye suñu borom fayeku lii mu ko fay am leer ma ni ma ko waxee lépp léegi loo dàq lu ne luy njëriñ fii la jëm si fi moom len lu nekk bëgg naa yem ci bisam bi alhamdulilah rabbil alamin te it damay wax ne borom ngërëmul yàlla doy na waar day meñ xoolal tey jii événement bi li ko tàmbalee ci premier safar ba fa mu yem lépp loo xam ne waaye yëkkati na ko ci kàddu ko wax lu baax tàmbalee ci njàngum alxuraan ak waaraate weeg jàng jëpp jëf joo xam waaye yëkkati na ko ci jëf ju baax bépp yéene boo xam waaye yëkkati na ko yéene ju baax loolu dil di si wàcc kontum sëriñ kontum sëriñ Tuubaa waaw kon maanaam aw yiwum dootu dootul mën a yemati fenn ndax fii ne ñi nga xam ne ahlu café boo liggéey li ñuy wax ak waa dëkk bi kala berndeel gan ñu ngi ko tàmbalee woon ci ci ubbi sab xar kanam mhm. bashashatu wajhil mar'i xayru min al qira mhm. berngal gan mi ngi tàmbalee ci ubbi saxaar kanam bu mu bég ñoom tàmbalee wuñ ko ñu ko tàmbalee ci fàkkal gan gi fi muy jaar mm-hmm. buub ko ba mu set mm-hmm. buubal ko ëtt bi fi muy toog mm-hmm. buubal ko kër yi doo ko jëm ci waajal bernde yi ba nga xam bu dikkee bu ko xoolee képp dal di regg doo ak nag doo ale ne wasalaamu aleykum ñu doog ubbi xaar kanam ñu jox ko te rasulullahi nee woon nañ ko ayul islaami xayr ban islam moo gën mu ne tut'imu taama wa tuqri'u salaama ala man arafta wa man lam taaraf ban islam moo gën mu ne mooy ngay joxe ñam di jàmm sante koo xam ak koo xamut def naa màggal Tuubaa moom joxe ñam ak <laughs> jàmm sante koo ak koo xamut si sëñ Tuubaa dundal na si dëgg-dëgg diine waaw lépp dëgg lépp ci nangul yàlla gi ak si borom delloo si diine ne ko jaa'iluka linnaasi imaaman imaam googu moo waral fi lépp lu mu laal mhm. diine cee judduwaat diine cee dekkiwaat jikkoy rafet cee dekkiwaat islam ba cee dekkiwaat wallaahi ci lu wér euh, jërëjëf euh, Serigne Moustapha am na solo lool euh, xol yi seddati na macha allah léegi tax ñu lay namm lool suñu plateau Serigne Mansour li mu wax ni dafa mel ne samay sama sa foofu relation humaine mhm. dafa mel ne màggal gi da koy da koy koy indiwaat maanaam di ñi xamante waat Euh, ñi gëjoon a gisee gisantewaat euh, am na tamit lu mu lu mu lu mu laal tuuti rek ci waa ahlu café ji muy euh, maanaam dañoo commencé ci mbale mi soog laa indil nag li nga xam si moom mooy café gi waaye dafa am benn laay lu mu la doon mu ne ma li ma gën a yéem ci daayira ahlu café ne ko mu ne ma maanaam yar bi nekk ci gone yi bu ñu lay jox café mooy li sëñ Moustapha doon wax nga xam ne dañuy sukk ak koo mën di doon dañu lay sukkal euh, dañ dañ lay jox kafe gi ci teggin yoo xam ne si mm. yow même boo naan café da nga da nga téye ba mu jeex mm. loolu tamit mu mel ne lu am solo la sëñ Mansour ak euh, nga tuuti rek ci wàllu surtout relation humaine bi nga xam ne si moom mooy am ci biir màggal bi waaw jërëjëf sëñ Modou jërëjëf sëñ Moustapha ci leeral yooyu nga xam ne indiwaat na ko mm. euh, muy bunt boo xam ne dafa mel ne rek màggal gi li ñuy wax naan lépp luy mbaax te lislaam dawtal ko fi barab day mel ne day dajandoo ci bis bi ba tax na bisub jaamu yàlla la bisub dekkalaat gépp mbaax goo xam ni moo taxoon suñu yonent bu tedd bii dikk makaarimul axlaaq yëpp ndax loolu tamit bu ñu ko bàyyiwul xel dana mel ne dana am foo xam ne dana sooxeel li ñuy def fekk ne buñ ko delloo ci li taxoon a jóg boroom rek mm-hmm. lépp da ciy daa dugg matale eh, danaa dugg tuuti rek ci buntub li nga xam ne sëñ Moussa moom la dikkee muy ndax day leeral li ci kanam muy natt yooyu ñu wax ak sëriñ bi ni mu ko jàppe woon eh, gis nga benn firnde rek laa ciy joxe muy tey jii téere bi ñu wax ne moo gën a wax ci lim mbindum sëriñ bi jëmale ci yoon wi ak limu ci dund ak ak natt yuñ ko ci teg mm-hmm. mooy jazaw shakur xatuf te téere bi boo xoolee turu téere bi rek tey jii euh, ku doon ne damay seet foo xam ne sëriñ bi wax na fi nattu yi mhm. danga nga fa romb téere bi ndax tur yi wanewul dara ak nattu feeñ na ci biir te loolu benn naar bu ñu wax Abdou Latif euh, ku baax moo ko doon laaj sëriñ bi may ko ci wàllu yoonu géej gi mhm. waaye sëriñ bi dafa mel ne euh, dafa am gàllankoor wala dafa am loo xam ne lii moo koy dab ci biir ba tax na ni ngay séenoo ne tey jii sëriñ dana ci wax nangam ak nangam ak nangam ak nangam dal na ko ci ah. tey jii boo deful ndànk boo ñëwee di nga am mbetteel wala boog bu doon loo séenloo sa yaakaar dana tas ndax sëriñ bi dem na ba ci biir mu wane ne eh, man de li ma dogg mooy ndar googu rek daj naa fa loo xam ni mm-hmm. du ma ko tudd mukk mukk mukk mukk ndax nee na temps du ban maa xayri mashkurin ngir teggin diggante ki nga xam ne moo ma doon teg natt yooyu mm-hmm. ndax xam naa ni loolu tarbiyatul xay yi rek ki nga xam ne mooy aji dund ji moom a doon yar te yar goo xam ni moo tax lu yàgg yàgg yàgg du ma ci dund da ci mosal rek loo xam ne ay bunt la ngir ki nit ñi xam ko waaye nee na am naa ci daj naa ci loo xam ni duma ko tudd mukk ndax diggante sama diggante ki nga xam ne moo tax ndax xam na ni lii mooy li mu waxante woon te itam ba mu ko waxee waxantuwu ko da ko wax muy wér ci moom dafa waxoon ne luñ ma mën a teg bu ko ruugi at ne sama jom dékkunu moo tax lu mën a dikk rek day jàpp ne ci biir la bokk kon loolu dafa tax moom Euh, nattu bi nga xam tam sëñ soo ubbee na ko moo gënoon la diis si nattu yi moom bi ci jiitu mooy tàqale ko Touba ndax dox na diir jaar fu ne Daaru Salaam jaar na Mbàkke Mbàkke Mbàkke Kajoor la tàmbale mbakke Bawol Daaru Salaam ba yegg si Touba ñu jàpp ne mooy àggukaay bi sëñ Abdoulaye nee na juróom-ñaari at la ko yàlla may mu dëkk ko fi atum juróom-ñaareel bi di amajee si ci lañ ko génne dellu si waatu fi bi ni mu wàccee liggéey kon nattu mën a te weesu loolu dëkkam bii nga xam lam ci waxoon lépp defal ma fi ñuy saxal jaamu yàlla nga xam ne jaamu yàlla googu wéetal ci boroomam moo taxoon fu mu nekk ba mu xumb mu jóge fa dem ba mu yegg see Tuubaa ñu jàpp ne àggukaay bi ñu ne ko nag fii la nattu yi di tàmbalee kon ki nga xam ni kii moo ñëw ci bis bi na fàttaliku ne coono bi yëpp yanu na ko jàmm ji rek moo ci des kon loo xam ni di nag aw nit dañ koo bokk kenn sosu ko defe naa ni ànd ko dana yomb kon moo waral kenn ku ci ne boo ñëwee waroo gëme sax nit dikkal la ngir nga war koo bernde ci bis bi nga war koo euh, laabire ci bis bi war nga def lu baax jëmale ko ci moom ndax borom bis bi ba mu koy def fa mu doon ñaane amin sax amul koo doon defal kon def naa loolu mat naa ci doon jërëjëf jërëjëf sëriñ Mansour ñu lay sant bu baax a baax sant sëriñ Moustapha mbokk yi kon nañ ànd ak waa régie rek daal di seetaan rétro màggal muy màggal 1979 soññe yi nga xam ne sëriñ bi defoon na ko ci bu mag bi nga xam ne moo jublu sunu kanam dama di ko wax màggal gu mag bi te ñun ñu ne nag yi moo wane ne borom doole na ko ci dama dina bëgg a leeral bu wóor fi nga xam ne fi la màggal gi sosoo ak li ci di kuréel li ko ci indi yàlla def na Tuubaa ji Sëriñ Tuubaa ko sante juróom-ñaari at la ko yàlla may ak li gën a leer la ma war a tolloog ama jiite ba mu dikkee ba ci biir malaanam muy def muy def luñ ci taaf ci jàkk bi nga xam ne tey mooy jàkk bi Sëriñ Mbàkke ma dina defaraat ci jàkk boobu fi la ne te di fi def listitaaf rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama feeñu ko ànd ak gaay nga xam ne doon àndam te du tàggu moom ba mu nag ñu ciy jëpp nag daal di jëm ci bëgg a bokk ca gaa yooyu di ànd ak ne ko loolu day dafay lu jafe ñun ñu ngi ci ñu ànd ak man day suñu deret bokk ci ñoom lu jafe lay doon loo xam ne des koy yëm te du ko bokk ak kenn te da koy rafetal ba mu jeex mu door ko mën a am. danaa bëggoon dinaa bëgg toll nga ci ñetti weer képp moo waral la nga mën a nekk xutbu samaan ndax kenn du ko rek ci seet mooy ñeent fukki at te ñetti weer dox dox sa diggante ñeent fukki at mën naa laa tëbal ñetti weer yooyu bu suuf tey. daal lay def joxul bu saxam mu xaaral ci ko loolu rafet na loolu neex na waaye sama jëndal ko nga sama bëgg-bëgg ma mbooloo mu ngi ànd ak yow ma bokk mu ko ne ko loolu ci boole bi dafay diis ngir bare aana ku toll fu nga toll ma feeñoo ko ni ñu la la feeñoo mu bañ a ci bëgg dara lu lay waaye lay tax mu bokk si nag bu ñu ko fa yemee dafa dafay dem ba nga xam ne dañuy mujj dindi ko waaye kon dafa dafa yàqu la waaye kenn ku ko yenu yóbbu ko la bokk si amagul kon nag bu ñu sañoon yow doo ci tàpp ngir ànd ci man ak cofeel koo xam ne cofeel ji ma dindi te du war a mën a dindi lu mucc tax mu war a dindi loolu jàmm te teeluma nangu benn gàmm ngir yàlla mu ne ko man daal damaa xam digg ma yàlla lan lay doon loolu ji sakku ma ko bay xam ne attan ak lu dul attan waaye li ma mën a waat daal mooy ak lu mu mën a yal bu ko léegi attan la daal sama jëm dëkku la ko na kon nag li may xamal moo li mën a naa ko kon nag li setul dara lu sëkk bi jënd ñu te ñii bii de ci aaree aaree seen ko ba aw xay ma su sot mukk ba bàyyi ko ko nga jëndal mooy mooy sa bos ba mu waree rek daal di ba ci ba di toog dafa naa ne eh, sawal la fa am seen xëy bi seen jigeeg mu xaram safa di ko jàpp mbokk yi nekk ci régie bi euh, ak euh, appel bu am solo boobu nga xam ne daanaka. mën na ne euh, vidéo bi moo xaw waroon xaw a jiitu tuuti sax que euh, ndax li sëñ Moussa wax léegi ak sëñ Mansour mu doon mottali dafay duggaat rek ci nattu yi nga xam ne si moom la sëriñ bi euh, moom la ko suñu borom bokk na ci rek génn gi nga xam ne ci la waroon a génn Touba gét li nga xam ne suñu borom daf ko ko doon jaay te moom it mu nangu koo jënd ne ko ruu gi daal laa sàkkul ba xam lu mu attan lu mu attanul waaye daal xam naa ne bu fekkente ne lu sa sama bakkan dana ko fekkee moom fit wi moom ñeme na ko loolu tamit di wane rek njàmbaaru sëriñ bi ak it bëgg goo xam ne si bëggoon bëggoon na ko euh, am fu mu yegg maanaam foo xam ne daf ko visé woon bëggoon faa yegg te la taxoon mu bëgg faa yegg yeggoon na fa daanaka ba pare ndax la taxoon mooy moom ak jaamu yàlla matoon na sëkk waaye nun ñii la bëggoon a dimbali ndax bu demee ba liggéey lu toll noonu euh, am ca lam ca am walbatiku dellu si ne kaay leen ànd ak man ngir santale ma euh, su boobaa ñun rek la bëggoon a dimbali xam naa waxtu bi moom xaw a xoj tuuti ndax saali wàdd mi nekk ci technique bi mi ngi may mi ngi may ma juróomi minute la dese fukki minute la dese du ma ko nangu soxna Aysatu dama leen di bàyyi rek yéen tamit ngeen duggaat tuuti rek ak sa gan gi su ko defee euh, bu ngeen dellusee ñu jox sëñ Moustapha ak waa Ahlu Café ñoom it ñu tàggoo ñu daal di teg éléments yu mujj ndax waxtu wi xam naa ca teg solo lool may rafet lu baax kàddu yi nga xamante ni jëm na fi am na solo ndax sëñ Moustapha li mu wax dafa am solo bu fee daal di di dikkaat nag mel ni euh, ci suñu euh, biir waxtaan ci la euh, ci la ci la ci la duggaat baax a baax ndax li mu wax ni màggal li ci ëpp li ci gën a ëpp solo ci soxna yi sax bi mu ko waxee ci maanaam ni ñuy feccee kanam yi xar kanam goo xamante ni mm. dafa oyof dafa leer man dafa nooy moom mooy dala gan kon dafay daal di duggaat ci li nga xamante ni moom mooy suñu suñu kii suñu euh, thème euh, soxna Ndeye Mbaye euh, kon Euh, ci loolu la ñuy duggee rek ci li nga xamante ni mooy ñun ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci dëkk bi ak ñi fekk si nan la ñu war a mën a laabirantee ci suñu biir ba nga xamante ni kenn ku ci nekk di nga mën a um, euh, sàkku si lu baax li nga xamante ni cant gi nga xamante ni moo la tax a lu baax la li nga xamante ni moo la tax a jóg ba ba nga ñëw kenn ku ci nekk di nga ko am na nga xamante ni na la ko bëgg nan la ñu war a mën a laabirantee ba loolu mën a am. waaw laaj nga laaj bu am solo. Mm-hmm. foofu xam naa dama fiy indi ak li sëñ Moustapha doon wax sànq te mooy. Mhm. ak sëñ Mansour tamit feddali ko mooy jikko ak axlaax mhm. ndax euh, jikko moom mooy doxal lépp boo xoolee suñu société fi ne ni mu yàqoo. Mhm. ñëpp di ko jàmbar lan moo ko waral jikko yu yàqu. crise des valeurs. rayaata bi bari na tooñante yi bari na lu ne lu ñaaw bari na jikko lañu ñàkk. Euh, te dañ ni gan gi nga xam day ñëw. Euh, buy ñëw ci yow bu dee ñetti gan lañu bu ñu boo leen séenee ñuy ñëw nee nañu ki ci gën a rafet mbubb moom ngay gën a sopp am naa ay gan dañ maa war a dalal ma taxaw sama bunt kër di leen séentu mhm. ma seen ñetti gan di ñëw wala ñeenti gan ki nga xam ni mbubbam moo ci gën a rafet moom laay gën a sopp ndax doomu aadama dafa bëgg lu rafet lislaam bëgg lu taaru bi ma leen séenee ba ñuy ñëw ba jege ma ki kanamam gën a rafet laay gën a bëgg mm-hmm. waaye bi ñu egsee ba jaxasoog man nag ma yóbbu leen ci sama saal yóbbu leen sama néeg yóbbu leen ca waañ ba jox leen ñu xewlu kë ca gën a rafet jikko mm-hmm. moom laay gën a bëgg kon jikko mooy fondement ci lépp lu mu manti doon mooy doxal àdduna jikko mooy doxal société mm-hmm. mooy yor ensemble ba mooy yor fépp foo mënti gis boo xoolee ko mel ni luqmaanul xakim rek li taxoon ñu baree bari defa ne ab yonent la ay jikko yu rafet dong la woon te ab sàmm la woon doonoon koo xam ni ñam jamononteel dañ ko xeeboon hmm. waaye ay jikko yu rafet moo ko yóbbu ci li nga xam ni moom lañ koy ji naan ab yonent la te fekk ab xakim la woon hmm. waaye boo xoolee ki nga xam ne mooy suñu sëriñ di seexul xadim ni mu fonkee ay jikko jàngal ñu ko ci téere yu baree baree baree bari di ñu wax ab murit nan la war a mel mu mel ni sëñ Moustapha wax na ko léegi te mooy loolu jàpp naa ni sëriñ bi nga xam dañ koy ziyaar te ñañ ko war a wax am nañ ci seenub sàmm moo xam ne war nañ koo ton ni mm-hmm. ndax bu dee taalibe bi dafa ñëw ni dalaa yaakaar dajale àddiyaam bàyyi yitteem bàyyi lépp kii sa jëmmi maam bu ñëwee nag ba sukk ci sa kanam jàpp naa ni ñaanal ko mu dem rek ñaan gi baax na lool mm-hmm. waaye wax ko lan mooy maye jikko ju rafet ba su delloo moom beneen dëkk walla mu dellu këram fa mu nekk day doon Touba ci moom. Mm-hmm. ndax jàpp naa ne murit bu nekk fa nga dëkk mooy sa Touba. Mm-hmm. beneen bi ci des mooy li ñu mën a dimbali ci loolu mooy li nga xam ni moom la sëñ bi sumb di ko mébét ba mu toogee ba tey di ko wax di ko baamtu te mag lu muy wax di ko waxaat. Mm-hmm. loolu lu ko ñor la. muy lan muy jàng xam-xam xam-xam boo xam ni moo la yóbbu ci ragal yàlla. sëñ taxaa loolu ñor na ko trop trop trop trop. Mhm. dégg nañ rek bi muy def waxtaanam bi ci waajtaay ci 18 safar bi mu feddaliwaat ko bi mu toogee discours bi mu njëkk a def nee na sama yitte yépp mooy lan mooy xam-xam. Mhm. ndax dafa xam ni xam-xam dong bi nga xam ni mooy tax nga ragal yàlla moo mën a defar doomu aadama nit ki lu mu mënti jàng te jàngal jàngaluñ ko diineem pour mu baax cent pour cent dana doon lu jafee jafe jafe te loolu suñu sëriñ jàngal nañu ko kon ki nga xam ne ab sëriñ la. Mm-hmm. saa bu taalibe sukkee ci sa kanam bu dee mbooloo mi dañoo bari ba mënoo wax ak ñëpp war ngaa mën a organiser say bëkk néeg organiser ay waxtu yoo xam ne nag sëriñ bi day génn ci ëtt bi comme ni ko suñu sëriñ bi dafa defee seex Cheikh Mouhamadul taxaa yàlla na fi yàgg te wér. dajeeg taalibe yi wax leen nag lan la yàlla wax. nan la ñuy def ba baax. Mm-hmm. nan la ñuy def ba am jikko yu rafet. nan la ñuy def ba doon murit saadix ba ñu doon marit ndax murit dafa am marit am te marit ku doon murit nag di xoole ba doon ab marit bu yombal xiyaamee di nga tas ak seexul xadim mhm. te su boobaa di nga sëgg te sëñ bi dani képp koo xam ne bëgg nga ma sa yaram araamal na safara mhm. waaye damaa wax ni bëgg day ànd ak jëf ndax suñu maam ju baax ja alxaaji Malick mhm. dafa wax ni walay sa xubbul walaysa lafun ala xubbin bila amalin wa tabi an sunnatal muxtaari tuqtanami nee na su dee da dangaa bëgg sab sëriñ wala dangaa bëgg Seydina Muhammad bëgg nga warta yem rek ci sa làmmiñ mhmm. alxamdu dañ koy def ci làmmiñ waaye as sukkur xol a koy def ak jëf mhmm, dëgg la misaal mi ci mën a indi lu leer la mooy takk nga soxna ni sama soxna si damaa bëgg indi ko sa biir kër waaye soxna si du fóot du bale du togg la mu warloo yow ca biir du ko def. Hmm. soo génnee ku la ni am nga soxna nga ni ko waaw am naa soxna soxna rek am soxna doo nga am solo. <laughs> comme ni ko ñenn ñi waxee ak taalibe doo am solo lan mooy ak taalibe. Hmm. am soxna doo nga am solo defe naa ni ku fi takk soxna bàyyi ko sa kër du lay fa dara boo xëyee rek ñu la ah am soxna doo nga am solo. bu yàggee est-ce que doo fas soxna si mu ñibbi <laughs> kon lan moo tax ñuy ñuy jël baat yooyu di ko utiliser ci sëñ bi. Ah. ak taalibe doo nga am solo. ak bëgg doo nga am solo bëgg day ànd ak jëf. Mhm. bëgg gu àndul ak jëf amul njariñ. waaye beneen bi may dolli soxna yi mooy. Mhm. wàllu togg yi tamit nañ ci farlu bu baax a baax a baax. Mhm. ndax ku ni màggal ni bernde. te boo xoolee togg yi niñ koy ornee. bëgg lu neex gan lay doon. waaye am na élément yoo xam ne warut a ànd ci togg. di togg jël suukar rosé ko jël kafe rosé ko waroon def litre diwlin def litre ak genn wàll wala ñaari litre mm-hmm. ku ko lekk bu dee ko sant waadu baa mu sant kebe bu ñibbee biiram di metti ñu ni màggal Tuubaa ah. la feebaree Tuubaa ku fa dem da ngay choléra ko Tuubaa ku fa dem feebar mm-hmm. fekk kay togg moo xamul yan produit la war a jaxase wala yan mm-hmm. élément ñoo war a ànd pour togg gi jaar yoon ba ku ko lekk am santé ndax ñu Sénégal damaa am ku ma dëkkaloon ku ñuy wax sëñ Fallou ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te wér di wax ni moom lekkul pour wér mhm. day lekk pour am bànneexu lekk te doomu aadama dafa war a lekk ngir wér mhm. comme ni mag ñi daan def laaxu daqaar laaxu cafaay cere ñun nag tey dañuy jàpp orne orne ba mu rafet nga lekk ko waaye du am benn vitamine ndax éléments yi ngay boole moo àndul dëgg la wala nga jënd boisson yoo xam ni boo ko naanee boo paree da ngay màndi di kayang kayang mhm. kon xam naa ni foofu laay am na solo waxtu bi moo ñu xaw muy la aba amoon solo li nga xam ne noonu nga koo leerale waaye loolu nga ko waxee léegi muy nga laaxub daqaar rek xam naa ne euh, képp ku ko euh, euh, ku mel ne soxna Ndeye Mbaye tey ji bu gane si woon sëñ moodu Kébé mi fekk ko mu taaj laaxub daqaar defe naa ne <laughs> dina xaw a doy waar lool kon li nga wax ci jikko yi maanaam sëñ Modou mel na ni jikko yi moom moom moom moom moom moo yàqu kon kon war war war nañoo xalaat xoolaat ba xam lan mooy def defaraat jikko yi ñu ñu fas sax ba sëñ Modou jërëjëf jërëjëf soxna Aïssatou am solo euh. laataa may ñëw rek ci waa àllu café bu ko defee ñu jaare foofu tëj ndax ñu ngi soññu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo woote waat ndax ñoom it amee nañ leen jukkal bu baax a baax euh, ñi ngi woote téléphone bi wax dëgg yàlla mi ngi fees dell euh, ku ñu wax Serigne Moussa Diagne nee moom taalibe Serigne Mamor Mbacke xam sa diine la nee na mi ngi nuyoo ay nuyoo yu sell jëmale ko rek ci musa faa Diop mi nga xam ne si moom moo toog ak it Serigne Mansour ak waa ahlu café yëpp ak soxna yi soxna Ndeye Mbaye nee nañ lay nuyu seetaan euh, télé bi euh, di sant bu baax tamit Hizbut Tarqiyyah ci liggéey bu am solo bi euh, Serigne El Hadji Guèye moom nee na élève la waaye nee na mi ngi sàkku xam-xam euh, nee mi ngi sàkku bu baax a baax ci chauffeur yi xam naa chauffeur yi moom euh, am nañu sas soxna Ndeye Mbaye yaa ko fi sulli de euh, ci chauffeur yi nee na ñu jàpp ci nañ jàpp ci safar bi waaye nee na te yombal nit ñi dem bi ak dikk bi nee na taalibe yi daal taalibe yi bu ko defee nee na taalibe dina ñu barkeelu rek ci gasoil bi waaye nag bu ñu ko yokk yenn yokk yi Euh, Serigne Moustapha Diop mu ngi wootee Touba Daaru Minam euh, nee na euh, moom it sant na waa almuridi yëpp nee na émission bi rafetlu na ko bu baax a baax te nee na mi ngi sant ñëpp Serigne Chouaye bu Ndiaye nee na Madiana lay wootee moom it mi ngi rafetlu li nga xam si moom mooy jataay bi kon daal sëñ Moussa Diagne taalibi sëñ Mamour Mbacke xam sa diine ak Serigne El Hadj moom élève la ak it Moussa Serigne Moustapha Diop ak Serigne Chouaye bu Ndiaye ñoom tamit bokk nañ ci ñi nga xam ne rek woote nañu wala bind nañu message daal di wax ne ñi ngi rafetlu liggéey bi bu baax a baax a baax euh, xam naa damay rek jàll ci waa ahlu café na ma ko waa régime may euh, ma jàll ci waa ahlu café rek bu ko defee ñëw ñu ñëw nag ci message de sensibilisation bi ñu daal di tàggoo loolu rek moo ci des may leen ma ko euh, ahlu kafe kon xam naa sëriñ sëñ daam ci wàllum séddaleem café mi ku nekk xam na ne mbooloo mi nga xam ne mooy teew ci màggal bari nañu lool lool lool ndax léeg-léeg du ngeen ci am ay jafe-jafe ak du ngeen ci dee am ay jafe yan façon jafe-jafe lay waaw xam naa ci tënk rek. Hmm. waaw waaw wàllum séddale kafe nag. ci jumaa ji. Hmm. ginnaaw comme ni ko suñ daam leeral rek ci hmm. ay kaddu. maanaam maanaam maanaam fu nekk rek am nañ fa ay ndaw. léegi ndaw ñooñu nag. ñuy daal di ñëw nag ci liggéey bi ci kër Serigne Abdou Lahat foofu la section bi ne. léegi ñooñu nag dañ koy def ay pàcc. pàcc yooyu ñu koy def nag euh, ku mel ni Diori Ñoomar Far Samb mooy def ay pàcc nga xam ne si ni. maanaam li commencé ci kër Serigne Moudou Moustapha. ba ci kër Serigne Moutada. ak soxna yi nga xam ne si nii ñooy leere ku tedd ki. Mhm. maanaam fu nekk. Mhm. dañ fay yagaal yabal équipe boo xam ne si nii kafeeg suba ak kafeeg ngoon du manqué. nga xam ne si ñooñu danaa leen kër Serigne Modou Moussa équipe bii mhm. ñoo fay dem suba ñoo fay dem ngoon. kër Serigne comme noonu noonu noonu noonu lañ koy wër a jumaa ji. am équipe boo xam ne si nii nag ñooy nekk ci biir résidence Cheikhoul Khadim nga xam ne ñooñu duñ fa jug. ndax gan ñi naam sax fa lañ daan nekk. waaye daa dem ba mbooloo mi ëpp ñu doole. nga xam ne suñ si di daan ñi daa daal di wax sonn si mu daal mu doog a ñëw ci kër Sëñ Abdou Lahad nga xam ne équipe boobu ñoom fa la ñuy féete waaye ci wàllum séddale gi daal am nañ ndaw ñoo xam ne si ni engagé wu nañ te liggéeyal Sëñ Tuubaa rek ñor leen nga xam ne si ni ñooñu bu ñëwee mm-hmm. amul guddi na amul naaj na amul mu ten ten koy defee nag defin woo xam ne si nii mm-hmm. day day day day doon ci njàngalem ku tedd ki ndax ndax ndax nu sell lañ koy defee ndax ku baax ki dañuy xamal ne mm-hmm. même kii segg wala ki nga xam ne sax day séddale kafe mm-hmm. balaa laal kafteer bi daa am njàpp hmm? waaw balaa laal cafetière bi mm-hmm. ngir xelliji ko daa jàpp ba sell la bu dee soxna la mm-hmm. day muuru ay cëram ba mu daj mu jël cafetière bi dem xellil soxna yi bu dee góor yàlla mu jàpp ba sell sol lu jot takk ndiggam fas yéenee xitmal Sëñ baa dem xellil góor yàlla yi nga xam ne góor yàlla yi ñooy xellil góor yàlla yi soxna yi xellil soxna yi nga xam ne maanaam wàllum wàllum séddale gi moom am nañ ci ay ndaw ñoo xam ne si nii dañoo engagé wu ndax région bu ne am nañ fa am nañ fa selliir mhm. ñooñu moom dañoo engagé wu ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa mhm. fekk si ñi nga xam ne si nii comme ni ko Sëriñ daam waxee dañoo ne ci biir ci biir dëkk bi waaw ak yeneen berne ndax ndax daanaka handicapé yi nga xam ne ñoo nekk kër Sëriñ Abdul Xaat mhm. soxna si li ñu toggal ay xéewal ay bernde yu yaatu moom daal moom maggal gi moom sama temps bi moonu xoj waaye daal moom daal ku bëgg dëgg dëgg xéewal moom moom li wër jumaa jeeg biir Tuubaa mën na ne bëgg nañoo matale lépp bu soobee ko tedd ki Cheikh Ahmad Bamba jërëjëf jërëjëf yàlla na suñu borom kattanal euh, dool leen kattan bu baax a baax a baax doolli soxna maam Issa moom tamit euh, fan bu gudd ak wér euh, ba mu yàgg leen a jiite yàgg nekk seen kanam ba liggéey bii ngeen yàgg koo yàgg koo yàgg koo wéel kon dañuy daal di ànd rek ak waa régie daal di seetaan benn extrait dellu siwaat ci plateau bi nag daal di tàggoo sunu cant ci sëriñ bi diggam ak jaam ñëpp danoo amaat tawfeex ju rëy ñu fekkeewaat tertal weeru safar bii nga xam ne mooy sunu weer ñi nga xam ne am na tawféqi sunu borom boole noog sëriñ bi ndax bis bi nga xam ne ci la <coughs> boole cantam yépp bis boobu ci weer bi la nekk muy bisu fukki fan ak juróom-ñett ci safar kon sama kilifa yu baax yi jiitu di di gën a fàttali gën a fàttaliku bis bi ci xewal gure yi nga xam ne am nañ ko ci kon bis boobu mooy sunu lépp tey ak ëllëg ci biir fàttaliku bis boobu nag ak waajal ko fas yéene fas na cee fas yéene cee gën a yeesal sunu cant dolli ca rek lu mën a dolli sunu kem kàttan loolu moo waral kàddu yii ñuy bëgg jëmale ci wala mbokk yëpp yow bokkal sëriñ bi ñu di tudd sëriñ bi bokki jullit yépp ñi nga xam ne suñu borom waru boole bokk réew mi waaw te muy kilifay diine yi fàttaliku bis boobu nag te lépp ñu jëme ko ci ak cant dafay mel ne kon war nañ ci gën a yeesal na suñu lépp gën cee yeesal suñu jaayante li tax ñu di ci jiital yeesal suñu jaayante sëriñ bi day lépp ndax lépp diine ngi ci moom muy diinal islaam mu liggéey ci liggéey bu rëy yitte ju jooju nag nga xam ne ci liggéey liggéey bu rëy lépp rek mi ngi jóge ci wéetal boromam kon sëriñ bi fii ñoo ko gisee ba fi ñu ko noppee gis boolewul ak dara boromam lu dul yonent bi ci mbindeef mi nga xam ne moom la ko boroom joxoñ mu nekkoon ci diggante boobu rek boole wala dara ak wéetal boroomam di ko jaamu ak bëgg yonent bi jeex ci takk di ko liggéeyal ni mu doon jaamoo boromam noonu la doon liggéey la yonent bi jërëjëf euh, suñu mbokk yi nekk ci régie bi mu doonoon Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ci déclaration bi nga xam ne rek Euh, def na ko Mbàkke jëmale ko ci màggal gi ni nga xam ne noonu la ko way juróom yu baax yi doon defee ak magam yu baax yi nga xam ne ñoo fi joto jaar te euh, teogaloon fi Sëriñ Tuuba euh, ñoom ñëpp saa bu bés bi ne ñëw dañuy def benn déclaration bu mag boo xam ne dañ ciy soññ rek taalibe yi mooy mu ñëw rek daal di jaaraat ci yoon wa di ab lay leçon yu bëree bëri nag moo nekk ci biir discours bi ngir duud na lool 45 minutes la su ngeen ko dégloo am na thématique yu bëree bëri yoo xam ne si moo nekk ci biir boo ci jukki boo ko jëlee daanaka mat na thème boo xam ne si mënees na cee waxtaan lu bëree bëri am na ci thème bu am importance boo xam ne soxna Ndeye Mbaye doon na ko suli muy wàllu éducation muy jàng ak jàngale ak nit ñi dem jàngiwaat sàkku xam-xam yaru euh, yooyu yëpp dafa am solo lool lool lool ba gis euh, gis ngeen euh, insisté gi nga xam ne mu ngi koy insisté ci wàllu université bi nga xam ne moom lay def biir Touba nga xam ne fanweeri million milliard ak juróom-ñaar bu ma juumul moom la ci moom la ci moom la ci fas yéenee def te ci kanam tuuti rek feeki fan xam naa bu ñu génnee màggal ga ba ca kanam daa ngeen gis ne wala bu ñu génnee gàmm ga daa gis ne xeer yu njëkk ci wàllum euh, liggéey boobu loolu di wane ne rek ne euh, Sëriñ Muntaxa xam-xam daf koo ñor lool ngir euh, nit lu mu bokk lu nekk day xam loolu lu mu doon te bu ko xamut du sotti ndax lépp lu mu ca def lu nekk rek ñaare da cay demee ak xiir ba mu ëpp te mën na koo yóbbul ak ak cànkute léeg-léeg wala mu wala mu wala mu yegg ca waaye nam ca war a yegg dëgg-dëgg ak nam ca war a jëriñoo dëgg-dëgg ñaare dafay dafay faral des moo tax ñuy wax ne toujours rek mm, nit ñi dañu war a jàngi dañu war sàkku xam-xam bu baax a baax su ko paree suñu paree ci loolu nag du yàq dara ci sa taali tali bi boo dellu siwaatee nag summi say dàll fële summi sa mbubb wéeg fas yéene takk sa ndigg nag liggéeyal sëriñ bi loolu day nekk loo xam ne si lu am solo la sëñ Moustapha kon xam naa ci yow la ñuy tàmbalee rek euh, tàggoo bi euh, bu ko defee euh, nga daal di tàggu mbooloo mi ak ñi nga xam ne si ñoom ñoo doon seetaan su ko defee ñu jaare foofu tëj xanaa tomb bii nga wax rek ci liggéeyu sëriñ bi may wax ne Cheikh Mouhamadou Mountakha mujaddid la mujaddid la ci tëj sëriñ bi maanaam aji yeesal la ci liggéeyu sëriñ bi moo tax day delloo lu ne gis nga da koy samp fa mu nekk euh, ki doon rasulullahi fokk rasulullahi jox ko mooy liggéeyukaay moo tax sëriñ waxoon ne jox na ma mboolem xam-xam yi am njëriñ ba alquraan wa sunna sëriñ Tuubaa ne rasulullahi jox na ma mboolem xam-xam yi am njëriñ yi gannaaw bi ma jox alquraan ak sunna kon xam-xam yu am njëriñ dafa bokk ci liy tajdiid li yeesal moo tax bi mu dikkee di ci sama gis-gis dana yeesal ci xam-xam ba noppi dugal ci ak taalibe nag waaw waaw moom moom moom xam-xam lay lay yeesal ba waaye nag daa gis nit ci taalibe <laughs> dugal ci te bu ñu àndee rek macha allah lépp lépp day wér ndax yàlla fi yàggati wér ba àggale naa leen yëpp te ñu ànd koog boobu jërëjëf maa ngi lay gërëm bu baax Cheikh Amadou Kébé ci invitation bi di gërëm sa mbokk yi mbokk plateau yi mbokki soxna yi mbokki sëriñ si ñaan suñu borom euh, bis bi ñu dëkkmal mm. lépp luñ ci yéene ci aw yiw yàlla na suñu borom yombalal na ko yombalan na waajtaay bu bi àgg ci jàmm te màng ko te lépp loo xam ne gàllankoor la boo xam daa dox si diggante gi yiwoo ak ngërëm sëriñ bi loolu yàlla na fanq ko te fekk ko aatu yàlla yegg te kër gi it yokk ba baax a baax a baax fu ngeen àgg fu ngeen bëgg mu àgg ci comme maison de presse bu fu fu fu fu fu këru jot li xibaar di àgg daal ci àddina bi yàlla na fi kër gi àgg te lépp nekk ci liggéeyal yàlla liggéeyal yow tamit wallahi liggéeyal baax a baax baax ci woyof gi waaw bu ñu la wooyee rek soxla la nga daal di bàyyi lépp li nga doon def euh, ñëw xam nañ naxat nga lool ndax tey jii rek la jóge ndar euh, waaye teewul bi mu yegsee euh, dafa daal di dafa daal dafa daal di te bu ko neexoon ne damaa sonn waaye liggéeyal sëriñ Tuubaa bu foo ko ci woo mu wuyu la fa sëñ Mansour Seck loo ci doole rek bu ñu daal di tàmbali rek cant gi nga jot yëkkati jëmale ko ci sëñ Moustapha mm-hmm. euh, sëñ Moustapha mm-hmm. euh, muy jataay boo xam ni euh, kenn ku ci ne mm-hmm. boo fi jëlee kàddu yit dolli koo nga ci li nga xam ni wax na ko jëmale ci bis bi damay gàttal rek di ñaan suñu borom àgg lañ ci bis beeg jàmm te lépp loo xam ni séen nañ ko ci la sëñ Blaat waxoon ne mhm. bis bi lu ko waay sëf attan na ko dana ko yóbbaale kon nañ ci sëf aw yiw sëf ci lu baax sëf ci lépp loo xam ne suñu yéene ci liggéey bi eh, suñu borom jaare ci bis bi jàppalal ñu ko ci barki sëñ Tuubaa amiin yaa rabbal aalamiin jërëjëf jërëjëf sëriñ eh, Daam mm-hmm. eh, ci yéen it lu ngeen ci lu ngeen di tàggoo waaw xanaa di mm-hmm. bu baax di la sant bu baax ci invitation yi mm-hmm. ci turu Soxna Aysatu Mbàkke ak jëwriñ Abdoul Ahad Dieye ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ àndal di sant suñu bàyyi suñu Moustapha ak mbokk mboolem mboolem soxna yëpp ak ñi nga xam ne si ni ñu ngi ci jotaay bi di wax daal moom toolu sëriñ bi daa yaatu waaye ñun suñu sas daal dal ci kafe kon daal mu màggal gi daal dëgmal nañ ko mhm. commencé nañ ko bu soobee sëriñ bi mhm. ngir waajale ko euh, gàttandoo ko taalibe yi euh, ak kafe ak Sëriñ Tuubaa gi nga xam ne si ni wax na ne sama naaru góor yi nga xam ne mooy kafe ku ko rusu tawaar man ku tedd ki rusu ma laa teral kon daal ñoo nga ñoo nga ñoo nga ca loola rek masha allah dëgg la jërëjëf <laughs> jërëjëf joxal sëñ daa mooy mu tàggoo waa <laughs> koy jërëjëf sëñ Kebe mhm. ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax di nuyuwaat suñu bàyyi sëñ Mansour am Moustapha ak mboolem ñu ñu bokkal jataay bi ñëpp mhm. di ñaan bis bi ñu dëgmal rek yàlla nañ ci sëñ bi yóbbu mhm. comme ni ko Baye Mansour waxee rek yàlla nañ ci sëf aw yiw mu yóbbaaleel ñu ko ñuy waxaale waat rek nekkoon comme ni ko suñ daam waxee rek suñu sas day café café geet comme ni ñu ko waxoon ci biir émission bi rek amuñ ci budget amuñ ci lenn luñ ci yaakaar loolu sëñ bi mhm. kon képp koo xam ne si rek yaa ngi nekk ci réew mi ak foo mën a nekk mhm. ca doon bon wanante rek ca man a jàpp ci café gi itam mhm. ñoo ngi la ciy taaxirlu la ci bàyyi xel ndax bëgg nañ daal mu yaatu ba daj penc ci njabootu borom Tuubaa gépp kon nag ñoo ngi ciy woo murit képp koo xam ne si daal euh, ittewoo nga liggéeyu soxna si ittewoo nga kafe gi ca bëgg cee jàpp rek incha allah ñoo ngi lay taxeerlu mm-hmm. di santaat ñëpp di ñaanal ñëpp tawfeex barke suñu Tuubaa Xaadimu Rasuul jërëjëf jërëjëf euh, sëriñ Dame euh, sëñ Dame Café ak sëñ Dame Diop ak ñi ngeen àndal ñu ngi leen sant yéen bu baax a baax Euh, di ñaan rek euh, suñu borom seen liggéey yàlla ko suñu borom barkeel te li ngeen ci séentu Serigne Touba fay leen si fay leen fay fay leen ko bu baax a baax te yàggal fi soxna si ni nga xam ne noonu laa ko waxee woon léegi soxna euh, Aïssatou bu ko defee yow it nga daal di tàggoo ak sa gan gi soxna Ndeye Mbaye jërëjëf sëñ Modou ni ngeen ko defee rek am na solo lool soxna Ndeye Mbaye kon mel nekk nañ ci jeexitalu émission yi ñu bàyyi na nga indi sa kàddu yi tàggatoo incha xam naa kàddu yi kàddu yi cant rek la te mooy li waral màggal gi di sant mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkaloon plateau bi mm. di sant uh, mbokk jullit yi nga xam ne ñoom ñoo ñu doon teewlu waaye di ñaanal soxna Zeynab Fall mi nga xam ne moo génn àdduna ci samedi bi passé mm-hmm. Mm-hmm. doonoon yaa Seyda boo xam ni wax dëgg yàlla référence la woon mm-hmm. ku bëggoon soxna Jaaratullaahi la woon di wax ni jigéen ñëpp rek royukaay nga doon boo xam ni duñ ni démb la duñ ni bërki démb la waaye dañ naan tey la doonoon xale bu ndaw a ndaw dund na diineem ni mu ko waroon dundee waaye teewul dund na àddunaam xam naa di wax rek yàlla nañu yàlla yóbbu ci 18 safar euh, ñu fekkee ko tal ko gan ñëw ak teeru leen teral leen mhm. comme ni ko cheikhul xadim santaane ak ni mu ko bëggee mhm. wa di wax rek wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin mhm. jërëjëf soxna Ndeye Mbaye euh, comme ni nga xam ne noonu ko waxee rek muy soxna soos nga xamante ni mooy soxna Zeynab Fall kooku yàgg naa ko xam lool lool lool depuis euh, boobaak léegi defe naa na fukki at ak juróom toujours ma di ko bàyyi xel kon li nga na ko am na ko sëñ Modou euh, dafay loo xamante ne dafa siggil jigéen li nga xam ne moom mooy jigéen kooku suñu borom mosul na ko ci li nga xamante ni moom lañ doon wax fii ci li nga xamante ne mooy li nga xamante ne eh, bokkul ci li nga xamante ni moom la ñu moom bokkul ci eh, diine lislaam mm-hmm. kon képp koo xamante ne yaa ngi nekk ci àdduna ku mu doon mm-hmm. rawatina ci Sénégal gii mm-hmm. waaye rawatina ci biir dëkk biiri Touba loolu war nga ko bàyyi xel nekk koo xamante ni bis boo fi jógee ñuy nettali say jëf lépp nga xamante ne lépp day rafet kon euh, macha allah léppam dundam lépp lépp sànq na ko ci li nga xamante ne moom mooy diine waaye defe naa suñu borom fay na ko ndax fan yëpp foo dégg dëgg ñu di ko ñu di ko seereel loo xamante ni bu woon dëgg kon gannaawam lu mel nii kon soxna lay mbay ñoo ngi kontaan ci yow baax a baax te di la gërëm tax yow tamit da kenn ci suñ ci ci suñu biir saa yu ñu la wooyee mhm. dangay ngay daal di jekk ngir ñëw ànd ak ñun euh, sëñ du maa ngi ziar bu baax a baax ñi nga xam ñoom lañ bokkal jataay bi waaye di santaat suñu borom nag moom mi nga xamante ne moo ñu may fekke mhm. ak tal mhm. ba ñu mën a toog fii di mën a waxtaan ak euh, ñi nga xamante ne ñooy waa àdduna waaye ñuy gërëm bu baax ki nga xam mooy suñu euh, jëwriñ ji nga xam moom mooy moom mooy bopp li nga xamante ni moom la ñuy def waaye di la gërëm bu baax a baax yow tamit leen wax rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi jërëjëf soxna Aysatu Ndoy ñu sant Serigne Fallou Niang moom moo woote woon xaaya Touba xayra sant Serigne Mohamed Dramé sant it Serigne Modou Diop moom chauffeur la moom tamit Euh, sant Serigne Moussa Diagne euh, taalibe Serigne Mamor Mbacke xam sa diine euh, di jaajëfal El Hadj Guèye moom élève la sant it Serigne Moustapha Diop moom Touba Daaru Minam la woote ak sëriñ Serigne Chony bu Ndiaye ca Madiana sëriñ sant Serigne Moustapha Diop Ndar nga xam ne moo nekkoon suñu ganuk tey jaajafal ko bu baax a baax ba Serigne Mansour Seck ñu koy sant di sant Serigne daam Diop Serigne Dame Café ak ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal ak soxna Mami Sambaki mi nga xam ne si moom moo fi ah. nga xam ne ci ndigalam la ñu ñëwee sant soxna Aïssatou Ndoye mi ñu bokkaloon plateau bi ak soxna Ndeye Mbaye moo ko doon wéttali moo doonoon ak ganam ah, ak mboolem technicien yi Abdou Karim Sagna ah, Diafar ak Serigne Saliou Wade ak Serigne Cheikhouna Fall yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ak képp koo xam ne rek yaa ngi toogoon di seetaan sa télévision Al Mouridiyyah ak ñi ko doon déglu ci rajo bi 95 point 6 ñi doon dugg te jotuñoo yegsi wala jotuñoo jot seen tur yéen ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje ci seen beneen numéro màggal antenne màggal di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bisub cant bisub bernde bisub jaamu yàlla ci lii la màggal gi tegu ba tax na yow mi fiy dikk na la wóor ne yaa ngi ci bis boo xam ne boroom wax na ne lépp lu ci waay sàkku lépp lu ci waay bëgg lépp lu ci waay wut fala budda dina ko am su rafetalee pastéefam bés bu jàppandee nii ci sunu càkkuteefu àdduna ak alaaxira war nañu cee wattu lu nu man di neenal suñuy waxtu li bis bi xumb xumb sori na lool ak po kon yow miy dalal ay gan yombalal leen jataay yu am njëriñ ci fàttaliku yàlla ak tudd ko ci anam yépp xiirtal leen ci ñuy seetaan wala ñuy déglu wax ju leen di indil njariñ maanaam di leen ñoddil aw yiw te di leen dàqal aw ay wajtanibu majalisa shaqaawa wattandiku leen jataayu texe di lii la sëriñ Tuubaa digle rawatina ci bésam bi yow mi màggal si boo nekkul ci lu farlu la tënk boo naree toog loxoy neen xamal ne mën ngaa dem fu ñuy jànge alxuraan waaye mën ngaa demit fu ñuy jànge xasida ngir déglu bari na jataay yu ñuy waxtaan ci diine ak ci sëriñ Tuubaa mën nga faa dem ngir dolliku mu nga nemmeeku lépp yokk sa xam-xam ci Serigne Touba wala ci yoon kon daal nañu fexe ba tàggoog loxoy neen rawatina ci bés bii di màggal gi